asalaamaaleykum sama gars ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci réew mi sport alxamis le 18 juillet 2024 ñëw ci revue de bu fekkee ne abonné ko ñoo ngi sàkku ci nga abonné partagé lii di vidéo bi activé cloche de notification bi pour que vidéo ñu dugal nga bokk si ñi koy a gis fii ci réew mi sport revue de ñu ci ànd ak Serigne Cheikh Al Amine Mbacke di Serigne Sidi Mokhtar Mbacke asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna seen jeexla jeex na ci wàllum ñaan ak sëriñ Cheikh Al Amine Mbacke di sët ci Serigne Sidil Mokhtar Mbacke yow mi xam ne cat moo la sonal wala nga bëgg kaaraange ci sa bopp woowal Serigne Cheikh Al Amine yow mi bëgg bayre njaay wala nga bëgg bayre ci sa bopp woowal sëtub Serigne Sidil Mokhtar bi yow mi sa loxo yaatu loo yor mu gaaw a dem jokkool ak Al Amine Serigne Cheikh day jëng si la jëm ci wàllu juboole moo xam ci wàllum sey moo xam ci wàllu xarit ak xarit yow mi nga xam ne aussi da nga am problème mu kayit moo xam nga nekk fii ci Sénégal bëgg génn réew mi wala boog nga nekk ci bitim réew bëgg ami kayit mën a dellu siwaat fii ci Sénégal jokkool ak Serigne Cheikh Al Amin Mbacké Al Amin Mbacké nag mën ngeen ko woo ci 77 798 78 81 war ngeen woo ko ci 77 655 71 31 Serigne Cheikh Al Amin nag bàyyeeguñu ba tey ndaxte indil nañu ay fas yu ama am solo fas nga ñu lakk dëkk. waaw moom ñëpp xam nañ lay mbiram kenn nattab léewtu ko képp koo xam ne dangaa nekk mag baa ndaw am jafe-jafe néew kattan moo xam sa a di nooy di lax ngay gaaw a yegg wala nga nekk nit koo xam ne santirooto sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi fas la koo xam ne ci sama maam la jóge mu doon dond billaahi wallaahi wal kitaabi at yoo mën a am boo ko taqee taquk néew kàttan loolu Sénégal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil Sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dara wóoru al amin Mbacke surtout Cheikh Sidil Muxtar Mbacke radiallahu taala anhu kon na gaañi fas gàngoog dawal wuti ko ci nu a gaawee revue de presse dañ koy commencé fii ci Sénégal njëkk ak soxnaal bi di stade bu yéen kay dikk na donc ci ballon door bi nga xam ne war nañ kaa joxe ci weeru octobre Vinicius Junior Bellingham Rodri Lautaro Martinez donc yooyu yëpp di ay joueurs yoo xam ne ku ci nekk ñu ngi lay tudd ci ballon d'or moom moo tax stade bi yéen kaay dañoo yëgal ne ballon d'or actuellement douteuse maanaam daal ballon boo xamante si nii ñoo ngi sikki sàkk kan moo ko war a jël parce que yaakaar naa ne ballon d'or boo xamante si nii euh, l'attaque muy ñëw ñu teg euh, trois yoo xamante si ni ku ci nekk mën naa doon vainqueur bi gëj na am euh, trop ci li nga xam ne moom mooy ballon d'or kon stade bu yéene kaay li muy xam ne mooy ballon bi ba tey leeragul ba tey donc gars yi ñu ngi ci xel yaar ci sikki sàkk toujours donc euh, fii ci Sénégal record la ñuy dem euh, dikk na ci kii di Ismaïla Sarr donc Ezo un départ inévitable maanaam daal Ismaïla Sarr moom ak jugoom euh, foofu ci biir Olympique de Marseille léegi daanaka day doon loo xam ne lu war la li ko waral nag moom mooy Olympique de Marseille léegi daf ko jàppee comme un indésirable maanaam daal daf koy dugal ci lofto bi fa nga xamante si ni fa lay ñuy bàyyi joueurs yi nga xam ne Marseille soxla wuñ la Ismaïla Sarr tamit foofu la ko gars yi dugal kon moom amul dara rek loo xamante si ni moom la war a defati foofu ci Olympique de Marseille parce que gars ñi écarté nañ ko ci entraînement collectif équipe bu première bi yooyu yëpp nag pour pousser ko mu daal di sorti ci équipe boobu di Olympique de Marseille kon l'arrivée de Greenwood c'est une mauvaise nouvelle pour Ismaïla Sarr toujours donc dañuy continuer ci euh, lii di euh, titre yi waaye dañuy dem fële ci Angleterre Mirror Sport la ñu fay euh, fekk nee nañu ki nga xam ne moom mooy Ten Hag ak Manchester United daan nañ équipe bii di Liverpool ak équipe bii di Real Madrid concernant le dossier jeune espoir Liniero yoro di ab défenseur central bu nekkoon fële ca France ci équipe bu ñuy tuddee Lille équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee waa Manchester United démb la ñu Demboo ak eh, kisoor bi di Lenny Yoro Lenny Yoro mi nga xam ne démb def na eh, première partie lii di visite médicale am ba pare kon normalement tey war na mën a compléter mbir mi kon man sa sax United gagné na course bi moom ak eh, diggante bi moom ak Liverpool ak Real Madrid. toujours donc foofu ci Angleterre la ñuy des ba tey dikk na ci kii di zone sport di beneen journal bu nekk foofu ci biir Angleterre Enzo Fernandez après kaddu yu ñaaw yi nga xam ne yëkkati na ko bërki démb di ay kaddu yoo xam ne ay affaire raciste la comme ni ci journal sunu sport bi dikkee malgré que kii di Enzo Fernandez donc daal dinay jéggalu mais nag jéggaloom gi bu moytuwul euh, c'est trop tard maanaam daal fi ñu toll nii dafa nit ba jaan romb mu topp ca wates bay dóor ndaxte ki nga xam ne moom la ñuy tuddee jour Chelsea yi ñu ci bëri bëri mere nañ ko toll si ñett ba ñeent joueurs yoo xam ne ko ci nekk ma ngay désabonné loolu nag mën a indi ay jafe-jafe bu baax baax ci vestiaire yi ba tax dañoo wax ne li gën a wóor mooy mu def ab vidéo dal di jéggalu toujours donc lu jëm ci wàllu à la uni mais fële ci France la ñuy dem l'équipe nee nañu droit donc euh, devant donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Olympique de Marseille donc trouvé na accord ak kii di Greenwood Greenwood euh, ma nga ca Marseille depuis démb ci li nga xam ne moom mooy àllarba gi kon tey jii ni ci alxames bi normalement dina effectuer lii di visite médicale pour daal di mën a signer foofu contrat ginnaaw ba nga xam ne Olympique de Marseille ak équipe bii di Manchester United juboo nañ ci benn somme bu toll ci fanweeri million Manchester United dina garder pourcentage ci jour bi lu toll ci cinquante pour cent donte nag comme ni ko l'équipe bu waxee yaa a beaucoup de gens yoo xamante si ni d'accord duñ ci dikk Greenwood bi foofu ci marché bokk na ci maire bi nga xam ne moo jiite marché toujours donc ci à uni mais dañuy dem fële nga xam ne moom la ñuy tuddee Espagne fekk fa marka euh, premier match donc euh, pour Kylian Mbappé dina am donc ci euh, lii di super coupe d'Europe Euh, contre ki nga xam ne mooy Atalanta Bergame su ma juumut la 14 août lay doon ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Marca moo ngi nii xamal ne Kylian Mbappé dina commencé entraîner ak équipe bi di Real Madrid le 7 août moom lay def lii di retouram bu ko defee bu defee retouram benn semaine lañ ciy teg mu daal di mën def li nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, jouer premier match am euh, super coupe de l'UEFA contre kii di Atalanta di coupe bi nga xam ne ki gagné Ligue des champions Real ak ki gagné Europa League Atalanta ñoo koy daje. toujours donc foofu ci Espagne ba tey Marca AS mi ngi xamal ne kii di Kylian Mbappé actuellement moo ngi ci meilleure forme physiquement donc doon na boo xamante si ni euh, kenn du opéré li nga xam ne moom mooy bakkan bi loolu la ñu jël comme ndogal ndaxte gis nañu ne mi ngi cent pour cent joueur la boo xam ne am na physique bu mat sëkk pour jouer euh, sans problème jour la boo xam ne euh, daanaka saa bu nu xëyee suba ci Monaco ci Paris ci France ci Real Madrid di leen jaay lu mat sept mille mooyam jour la boo xam ne vingt cinq la am dèjà lu mat ñett téeméeri bi yu tegal fanweer ak benn cent 331 bi ci fi mu aw fépp donc kii di Kylian Mbappé gaañi kenn du ko opéré dina ñëw commencé le 7 août entraîné. dañuy continuer toujours donc foofu ci biir Espagne mais dañuy dem fële ca Barcelone sport la ñu fay fekk dikk na ñoom ci xale bii di Nico Williams selon journal bii di sport ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Nico Williams jëmb ci àllarba gi benn jano euh, donc am na jotaay diggante ki nga xam ne moom moo koy représenté ñu koy wax agent ak ki nga xam ne moom mooy le DG di directeur sportif bu yi de ko waxtaan nañ Barcelone donc proposé na ko contrat ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Deco li mu bëgg mooy matal transfert bi lu mu gën a gaaw laat laata euh, club bu anglais yi donc di gën a duggaat ci dossier bi comme Arsenal wala boog Chelsea. toujours euh, donc foofu ci biir euh, Catalogne la ñuy continuer après sport Mundo Deportivo moom nee na li mu bëgg moom mooy donc amener le duo donc le duo di la duo Dani Olmo ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Nico Williams waaye de ko loolu la ko kii di Juan Laporta yëgal di président bu Barça bi nee na ko waxuma la nga indi ko rek déedéet tegal ma ci aussi kii di euh, Dani Olmo. Euh, bërki démb ci talaata gi benn waxtaan am na diggante agent bu Dani Olmo ak Deco démb ci àllarba gi waxtaan am na diggante Nico Williams ak kii di euh, Deco ki ci fàttali nag kii di Dani Olmo 60 millions lay jar fii ba ginnaaw suba ci samedi bi boo xasee ba samedi bi jàll nag dootul amati close mais bu boobaa nag équipe bi di RB moom mooy wax ñaata la koy jaayee mais fi mu toll nii moom xam nañ prix am contrairement ak kii di Nico Williams la close donc de Nico Williams amut limite saa bu la neexee man kay fay mais Dani Olmo moom close bi mu am ginnaaw suba lay am après ginnaaw suba close bi day supprimer wo dañuy wax ci kii di Juan Cabal donc di ab euh, défenseur central colombien donc euh, vice champion d'Amérique après donc bu ñu perte contre ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, contre Argentine donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Cabal di ab défenseur bu nekkoon fële ca Hellas Verona mi ngi donc actuellement ñuy wax yéen ni foofu ci biir euh, Italie ci équipe boobu di Juve pour passer sa visite médical donc euh, kii di euh, La Gazzetta dello Sport xamal ñu ko transfert bi dina dikkee équipe bii di Juve lu mat fukki million ak yaar donc fukk ñaari million douze million lay doon dix millions pour le transfert et deux millions pour la bonus. balaa ñuy continuer sama gars ñi s'il vous leen di abonné mais surtout di partager. di like aussi c'est important lu jëm ci wàllu l'impression bi c'est important donc secret bi partager abonné et liker ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Abola donc di benn soxnaal bu nekk fële ca Portugal dikk na ci kii di. Diao Neves donc ñoom ñi ngi am pressentiment donc di ressentir que ne ñoom mën nañoo perte kii di jaawo Neves parce que joueur bi mi ngi xëccu actuellement pour dem fële ca Paris Paris teg na ci taabal bi 70 millions dëgg la accord am na diggante Diao Neves ak Paris mais toujours pas d'accord entre Paris ak Benfica mën naa am kii di Renato Sanchez di milieu de terrain bi Paris Saint-Germain ñu dugal ko ci transfert bi.